صليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدا المختار في الفيلم نعم نقي الله سبحانه وتعالى نعم كسطر نه إلكشن يينغ خمني موجبسي نيو كاي واخ إلكشن لوكال ñepp nak bëgg nek maire wa légui bu ñepp nekké maire kan moy nek père wa bu maire mëne am nañu wut père dëndalé ko ak maire waaw affaire bi sax am équilibre waaye maire kese waaye du baax ci réew mi de ndax jigéen jigéen àttanul saaku ceeb kon nañ ci boole peer boole ci onk boole ci cousin boole ci frère ndax yëf yi mën a dox yàlla na yàlla def jàmm ne ñi bëgg nekk maire balay wote ba di ñëw yàlla na yàlla wëlbati seen xalaat dëppale ko ba ñu mën a ànd noppalu noppal nit ñi mun yor rabbal ne dañoo amoon rek suñu benn najaay ca Ndar ndeysaan élection jot nag maire mu daldi di ca dugg woote daldi am ñetti carte ñetti carte rek la am benn waay ñëw nuyu ko waaye félicitation gis nga sama carte mu ne merci keneen ñëw félicitation gis nga sama carte mu ne merci keneen ñëw jaar foofu ñett dem na keneen ñëw nag ni ko félicitation mu toj kabaab ga ni ko tiil man ñetti carte laa am nga bëgg ma présenté ñeent ñetti carte laa am toj kaabaabu waaja waaja abal ko kër gi wax na dëgg te la bàyyee nag moom wote moom daal Sidi Bakar ne ñuy ñaan yàlla nag jàmm am ci réew mi amin yaa rabbal alamin monsieur le ministre yow yaag ñi nga àndal ñu ngi leen di yóbbante ci son excellence président de la république mais nga wax ko ni ko ñi ngi koy sant ñi ngi koy gërëm ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yokk ko yàlla sàmm ko lool nag ne waxoon na ko moom mii ca gannaaw ni diw mii falu waru fi falu kenn ku ne jéem a taxaw weddi ko yàlla ngay défier ci jëfam ndax falukat nekkul ci loxo kenn yàllaa ko waxal boppam yàlla daal nee nguur sama moomeel la maa ko moom maa ciy mosal nag man yàlla ku ma neex du jox kenn nguur ba nguur ga jeex daf lay jox nguur ba nga sore ca ba commencé bànneexu mu dindi ko indi keneen loolu yàllaa ko wax kon nag ku bëgg a weddi nag li yàlla def yàlla yow nga amal affaire ne daal ñu ngi ñaan yàlla yàlla jàppale ko jàppale nu jàppale réew mi ne baykat yi li manqué ci kaw gi bare na ne ñun duñu ay cultivateur duñu ay paysan ay cultivateur lañu ci àll ay baykat lañu ci all bi rek lañu dëkk xamit nak lu xew ci all bi muy lu bare bare bare bare bare la fa manké nak bari léegi sax lañu commencé di am lumière bi solaire xewé waye amuñu ko won ne bo fa démé bu guddi fekk na fa ci fakatalu rek ngay dëkk ndax ndam léegi nak ma ngay tane kenn ku né mi ngi wut sa solaire waye nak nañ leen wutal ay yoon ñu jokkale dëkk yi dimbale leen ñoom baykat yi ci mbay mi ñuy bay noor ak nawet suuf si nangu na ko ne senegaal li fi nekk ci àll kenn xamul na mu toll boo duggee Fuuta commencé ko rekk fii ci Fanay Fanay ba ba ngay àgg Matam lépp àll boo ko commencé Kaolack ba ba ngay àgg Tamba lépp àll la boo ko commencé fii nag jëm feneen fépp àll la waaye moyen amul jiwu yombul yu bare bare jafe na kuy wax ak ki nga war a waxal nag danga koy wax sa bopp ñun ca ñooñee lanu bokk dañoo dëkke réewu teeru bi rekk waaye foofa nag lañu bokk te du ñun rekk nag de bare na kuy dawal oto sañse sa maama nga foofee ca àll ba mm-hmm. waaw ña juddoo ca àll ba miin àll ba xam fa la am nañ ci tibb yóbbu ca àll ba te ko dem ca àll ba tabax defar ba mu baax yàlla mën na la ci yóbbu àjjana lu tax waaw yow sa waajur wu jigéen yaay sa yaay moo lay sagoo ah sama doom jëm moodu dey moo fi gaare oto bii moo fi tabax sax tabax bii di ko sagoo te mbégum ndey ci doom yàlla nee na fi sa yaay jaar ak yow sa baay jaaru fa ak yow kon daal bàyyil xel sa yaay bàyyil xel sa yaay bàyyil xel sa yaay bàyyil xel sa yaay bàyyil xel sa baay quatrième position la bàyyi ñëwee mais delluwaat Seydou Bakar ne ñu ngi leen di sant bu baax ne sa responsabilité woyoful de ne réew mu yëngoo nii li ñépp di bëgg di jaar ci sa loxo nga war koo régulariser metti na yàlla na la yàlla jàppale nee ñi ci des nag kenn ku ci ne la nga téye te xelu nit ña ne ca wala boog seen aajo du ca fajoo yàlla boo ci tële dara te loo ca jéem yàlla nga ko man yàlla yërmandeem ci jaamam yi ku leen jéem dimbali yàlla dugg ca boole leen dimbali leen yéen ñëpp صليا يا إلهي واجزيا أبدا